Certains donnent par exemple l'intervention de Barthélémy Diaz le jour euh, de la délibération du procès euh, bi opposé Ousmane Sonko a Mame Mbaye Niang ngeen choisir moment boobu pour lui porter les l'estocade lan ngay répondre ñooñu parce que tey dafa mel ni àndoon ngeen mais même bu fekkee ne bëggu leen ko reconnaître la fissure elle est elle est, elle est, elle est nette. Hein. Mais voilà, Beaucoup de choses. sont, sont forts, Les mots forts. Mais oui, mais la fissure, elle, est, elle, Beaucoup de choses sont passées. Yeah. je suis sûr que Khalifa Sall ne prendra jamais euh, euh, toute la responsabilité d'aller à Ziguinchor. Parce que ce qui est place de lu raw mun na ko arrivé du tout du tout mais place l'obélisque dafay xew mooy nous on savait que day am. ah bon oh, oh, on, on, que day am. ah bon loolu lañ Euh, bi Ousmane Sonko defee discours am ba pare euh, quand il dit à ses militants yi euh, vous êtes trop émotionnel bugguma kenn dem foofu yéex yóoxu kenn. c'est quelque chose c'est une éventualité la table c'est un message. bu mu bu mu envoyé wala. même si c'est pas un message volontaire on peut appeler ça li ñuy wax en communication une suggestion négative c'est-à-dire c'est une éventualité bu ne moom moo ko teg ci kaw table bi du ñun ñoo ko wax du ñoo ko créé le jour J bi ñu ñëwee ci ci bés bi. à chaque fois nga dégg turu Khalifa Sall nit ñi dañuy commencé yéexu yenn discours leaders yi on avait l'impression que xam nga loolu maintenant la posture de base tey est-ce que Khalifa Sall day dellu ginnaaw wala day daw mais ku xam suñu wàllu wàllu bi xam ne du dellu ginnaaw lan la ñuy daw on a rien à se reprocher mais mun a ñun ñu topp ñun dañu topp charte Yewwi Askan Wi charte bi moo ne élection locale dañuy ànd élection législative dañuy ànd bu ñëwee ba élection présidentielle ku mu nga nekk candidat et aujourd'hui dans yi ku nekk dafa am situation bi nga nekk ñun suñu situation bi ñu nekk tey mooy que tey amuñu mënuñu bokk élection situation Ousmane Sonko mooy bu ñu xoolee condamnation bi ko dal keroog ak ak ak yi ñu koy xëy na waajal si procès bi mën na bañ a bokk ci élection yi am na ñoo xamante ne ñu ngi biir Yewwi bu leen ñëwoon élection am na suba dañuy bokk am na ñoo xamante ne mën nañ bokk waaye wóorul woon ni mën na am parrainage mais loolu mooy situation Yewwi tey à partir de ku nekk dafay am stratégie bi nga am